salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar mbaa yéen ci jàmm dal leen jàmm ci seen chaîne bi di Darman Mobile ngeen fi amee seen astuce yu am solo yi tey nag dikkaat na ci benn vidéo boo xam ne si bu am solo lay doon ci ñu bëri parce que euh, vidéo bu am solo la boo xam ni euh, mat naa bàyyi xel quoi euh, mat naa topp du début la fin pour nga comprendre lan la ñuy wax ci biir ak soo paree nga mën ko utiliser muy benn. Euh, benn bloc note benn agenda boo xam ne si euh, boo ko xasee am euh, application lay doon agenda boo ko installé ci sa téléphone mën nga cee denc say document man mën nga cee denc say numéro téléphone mën nga cee denc bépp note boo xam ne si bëgg nga ko mën nga cee denc ay maanaam daal lépp lu la neex daal mën nga ko cee denc te li ci gën a xewale mooy da ngay danga ci dugal sa compte Google compte Google boo ci dugal nga xam ni compte Google bi nga ci dugal su ëllëgee saa bu effacé woo wala mu désinstallé woo wala sa téléphone nga raxas ko ak yu demee noonu da ngay dem Play nga nga téléchargé waat application bi boo ko téléchargé waatee nga eh, nga connecté waat ci sa compte kii nga connecté waat ci sa compte eh, mm, Google boo ko ci connecté waatee rek day restauré waat eh, yëpp lay restauré waat bu ko defee nga amaat mm, nga amaat bagage ci amoon yëpp mooy application bii nii bii. bii boo demee Play Store da nga koy da koy bindee comme nii nii bu agent agenda ngay def nga def recherche logo bi boo gisee bii bii nga xam ni mooy mooy application bi ngay wër léegi boo ko defee boo ko boo ko téléchargé ba am ko da ngay cliquer ci biir nga dugg ci léegi boo dikkee application bi nii lay mel interface bi nii lay mel nii bu ko defee fii am nga fi benn crayon fii am nga fi trois points léegi nooy def da ngay ñëw ci trois points yi boo cliquer ci kaw trois points yi léegi boo dikkee fii da ñëw connecté boo dikkee connecté nga ñëw euh, inscription comme euh, comme amee ci compte te bëgg nga fi compte boobu fii lay ñëw ci connexion yi mu ñëw fii ci mot de passe bi def connexion léegi nag yow su fekkee amagoo ci compte fi ma njëkkoon jaar fi ngay jaar eh, inscription bu ko defee gisoo léegi voilà moo def connecté nga bës ok léegi à partir de là connecté wu nga ci kër gi léegi bon pour nga vérifier loolu ni ngay def boo gis nga compte baa nii léegi soo bëggee def note boo defee nii fii da nga fay yokk titre bi boo defee benn titre nga wàcc fii ci suuf nga rédigé li nga bëgg a bind soo paree nga enregistré fii soo enregistré nga am fi benn note nga defaat nii kon damay jox exemple rek man damaa waat day bëgg nga defal leen benn commentaire bu ndaw rek léegi affaire baa ngi nii léegi fi ñu nii lii note yi nga fi am nii euh, lu mu yàgg yàgg yàgg gis nga lii da koy date day def 18 août def 18 août 2021 lu mu yàgg yàgg yàgg euh, compte bi nga nga ci enregistré nii compte bi compte bi boo xamee mot de passe bi soo xamee mot de passe bi xam turu euh, xam adresse email bi foo affaire bi ak ak téléphone boo ko man a enregistré téléphone boo ko mën a fekk soo tey jii soo demoon ba fu sore sore sore application agenda bi nga bi ci loo soxlaa soxlaa soxla fekk sa téléphone euh, boo mënta def li nga soxla mën ngaa bu téléphone wala téléphone di jàmbur boo xam ne am na agenda bi nga bu ko déconnecté compte am nga xam ni moom xam na compte am xam na moo xam na email xam na mot de passe am nga déconnecté compte am daal di connecté wu de passe bu ko defee li nga ci enregistré woon lii nii lii lépp day ñëw da koy gis quoi da koy gis normal euh, dinañ def vérification yi bala ñoo léegi tamit am na yeneen option yu bëree bëri bon bu la neexee nga ñëw ci verrouillage bi nii lii hmm. léegi lii bon lii lay jariñ quoi lii lay jariñ maanaam day sécurité day day sécuriser application bi nga xam ne si eh, kenn du ci am accès ku dul yow fii nii li fekk ngay dugal code bi rek du jàll parce que comme ab dencukaay la dafa am yu ay bagages yoo ci denc yoo xam ne si c'est confidentiel donc il faut nga wutal ko code secret léegi laaj na ma code bi mun naa tappewaat sama code xool ba xam gisoo léegi dugg naa ci application bi ak yeneen option boo duggaatee ci option bi nga ñëw fii ci style couleur couleur et style fii nii texte bi nii nga ñëw fii maanaam ba ngandewaayu texte bi selon yow ni nga ko bëggee rek bu la neexee mu nganda ngand naa ko yemale fii bu la neexee tam texte bi couleur bi nga xam ne day rouge bi nu la neex lay mel léegi fii tamit mooy temu mooy kii bon plafond bi maanam fond bi fond écran bi li nga fiy gis gisoo fond bi rouge voilà mën na mel lu la neex léegi baal ñu bàyyi ci bula bi léegi date bi tamit ba mën ngaa tànn date bu la neex ak format bu la ci neex gis nga yii tamit logo bi mën ngaa tànn logo bu la neex ak format bu la ci neex léegi sa paree mën nga dëpp ñu vérifier ji ko gis nga fond bi instant bi fond bu bulo la gis nga ko nii gis nga lii tamit moo logo bi ni mel gis nga léegi code la may laaj ma dugalaat code bi boo dugalee code bi gis nga amaat ci bu baax a baax léegi na nu ñu def nañu déconnecté kii bi wala ñu ñu ñu kii ñu réinitialiser eh, bo application bi vider la cache effacer les données oui léegi application bi dara nekkatu ca dara dara dara soo ko fekkoon fii ba Amérique nga gis application bi mel ni nga xam ne sa waaja mi ngi nii am na loo ci dencoon loo ko loo ci soxla gis nga instant bi fekk nga ko mu bees nii dara nekkagu ci yaa ngi koy installé nii xoolal léegi gis nga jëm application mi ngi nii instant bi nii fii nii rek lii bu la neexee rek nga tàmbali di ci denc say bagage mais xam nga loo ci loo ci denc instant bi nii mu enregistré woo ko ci benn compte saa boo nga koy ñàkk nga yi nga benn compte nekk gu ci application bees la léegi damay def damay ñëw connexion comme soxla naa sama bagage yi ma ci dencoon damay ñëw connexion ma ñëw sa connecté ma ñëw ci sama compte bi su ma ci dikkee ma ok mot de passe mot de passe ma defoon dama koy bàyyi xel bu baax ndax ma xam ko ok lii nag bul yaakaar ne instant bii la de eh, ni ma nekkee nii Euh, loo ko bàyyi lu mu yàgg-yàgg trois mois 2 mois ay semaine lu mu yàgg-yàgg rek euh, li fekk ngay xam sa mot de passe bi ak sa adresse email bi nii boo ko ci dugalee bagage yi nga ci dencoon yëpp mooy restauré waat xaaral tuuti rek xaaral tuuti euh, pour de vérification bi voilà léegi gis nga gis nga mu defal la fii euh, compte connecté vous êtes entré voilà gis nga gis nga affaire bi nekkoon fii doon wër moo doon wër lii bi ñu ko gisee dina ko automatiquement nga xam ni affaire bu am solo la ay numéro téléphone bu la neexee yow dootu manqué benn numéro ni ngay def di ñàkk ay numéro ci sa puce yeeg di ko enregistré Google ak fii moom moo gën a sax assuré compte Google yi parce que comme xam nga ni ci adresse email bi da nga koy def benn adresse email rek di ci def sa compte Google di ko def même mot de passe ne doo ko fàtte. loo ci denc lu mu yàgg-yàgg boo ko restauré nii la dikkewaat gis nga ko nii xam nga effacé na application bi réinitialisé naa ko vidé naa cachet effacé naa données yi bi nga dikkee moo laaj la ab compte boo ci dugaloon benn compte bu dul bii lii doo koy ñàkk dootoo ko amaat gis nga waaye gis nga affaire am solo léegi nag loo ci def nii ba pare boobu la neexee nga def nii pour xool ko bu la neexee nga partagé ko gis nga ko fu neex léegi daal euh, vidéo bi loolu la woon je pense que dina la amal solo parce que euh, kii na am na solo trop loolu moo nekkoon vidéo tey bi. dama ñu fàttali nag ni faaw nga am connexion pour euh, restaurer bi faaw nga am connexion di ko soor a